maa leen fa fay yéen. tur bi naka la. Euh, euh, a wax si drame su ah, moom métti na moom ku ne méttiwul daa fekk tegoo si sa bët rek affaire yi métti na trop trop trop ah, ki si ñàkk bakkanam ñoom ñaar ñëpp Sarr moo ngi nga xam ne moom Gueule Tapée la dëkk mais maman sama rakk la. ndax yomb moom wax dëgg fa yàlla ay booru deux heures la maman Roxee moom xale yi moo leen wàccee xale yi jàpp ba set julli moom mu ngi taxaw noonu si wetu yaayam man man maa ngi leen di romb mais ba ma leen rombee dama yéeg si kaw dugg ba ma duggee si biir kër gi noonu añ tuuti noonu day yéeg si kaw terrasse bi ne xaaral ma xont sama jur yi léegi temps bi may tijji premier kii bi noonu di tijji noonu rek si laa séen ci kaw beneen escalier yi noonu di ñëw rek mooy yuuxu wuy sama ndey Moussa ndax xale boobu moom foofu lay faral di toog Moussa Beye yaay yaayam wax yaayam ñoo fa toogoon ak ki nga xam ne mooy Ndeye yaay yaayu maman Rokhaya léegi man xamoon na maman Rokhaya buuse na wala buuse wu léegi affaire ba mu daanoo noonu ñu ñëw sauver ñaari xale yu teel leen rawale léegi naka de li ñu taxaw noonu di jindi xeer yi maman mi ngi foofu maman naka de bañ ko ciwee noonu si lañ ko yëkkatee bañ koy yëkkatee ma sama copain bi ak ki nga xam ne mooy ki nga xam ne mooy Aline Mbaye ak papa Dieye ay Buray ñun ñooñ ñëpp jàpp si yëkkati ko mais maman bañ koy yëkkati man mi dugal ko max Aline Mbaye si biir ñun xam na ne kii yàlla moom na ko bu yàgg. affaire bi ba la woon. ay deux heures. boobu daara la woon noonu wala. ah. daara bi moom Madaar moo ko sànce yàgg na Madaar moo ko sànce yàgg na trop. waa te moom kaas na si kaas na si pour ñenn ñi di ko ci dimbali di ko si jàppale. mais moom lu muy toog di wax lépp Matar lu mu wax lu dëggu la. léegi léegi drame bu mu doon am boobu élèves yi fi ñu demoon. boobu élèves yi yëpp wàcc nañ. waaw yàllaa si def sutura ki nga xam ne mooy maman Roxee wax dëgg fa yàlla moom xamoon na ne lii bësam la woo ndax ki nga xam ne moo moo ne xale yi dem leen ñibbi raxas lépp man kii bi nga xam ne saak bi nga xam ne moom lay jàngee alxuraan te kaamini nekk si saak bi mi ngi sama biir néeg saag bi mi ngi sama biir néeg. ndax maman man su may xëy 5 heures di ma ne di génn kër dama koy fekk muy jàpp si booru territoire bi kooku nga xam ne kii du nitu fii ndax leeraayam romb na fii mu doon nit koo xam ne nit ku baax jox ñëpp cër man dem man li ma koy xamal moom wax dëgg fa yàlla fu mu tëdd àjjana bu kawe la fay am. léegi avant ñëwaat si maman comme comme drame bi maman gisee traite bi wër ko wala wax dëgg fa yàlla xam nga doomu aadama doomu aadama boo gisee dret da ngay bi ndax ma Aline mbay ki nga xam ne ndóoyeen la dëkk fii ma Aline Mbaye ñoo ko muur ma ñoo ko jàpp dugal ko suñu biir saal ndax foofu la sama ñoom yaay dëkk ma dàq sama ñoom yaay ne leen dugg leen ci biir néeg ñu tëral ko noonu ma jël kii bi muur ko ci laa ko muuree après génn ànd ak sama frère bi nga xam ne mooy Lamine maa leen yóbbu maa ko yóbbu Abass Ndaw ñu jël ko urgence ma dellu si waat ci la nekkee di jindi yenn bagage yi. bëri nañu non ndongo daara yi wàcc nañ ba pare ku ne ndongo daara ndongo daara yi wàcc nañ ba dem ñëpp dem nañ foofu fi mama kiiwee yàlla moo ci def sutura mais foofu kilifa yu bari foofu lañ doon toog di teg ataaya di waxtaan bu deux heures jotee xale yi nga xam ne wàcce nañ alxuraan carré carré boobu noonu ñoom ci lañ daan taxaw di di foo di wàcc kon ki nga xam ne mooy mama Rokhaya moom moo sëfoo lu bëri moo xam fi mu tëdd yàlla na ko yàlla may àjjana bu gën a kawe. voilà sànq ko a wax ban qualité nga wax sama dëgg fa yàlla man lu ma ko xamee jàng na école jàng na alquran maman jàpp julli man wax dëgg fa yàlla man su ma ko woowee ne ko maman kaay dama la kaay ma yónni la marché wala kaay ma yónni la fii dafa may naan lii ma jox mu dem ñëw léeg-léeg damay nekk fu sori woo ko téléphone ne ko demal nga retirel ma wéef bi nga joxal ma ko sama yaay du fi teg baat day dem récupérer ko di di ki nga xamante ne mooy sama mag muy aji di ko masawu ñun ñëpp boo ko kii bi. maman dafa wàccee kaamil. maman na ba wàccee kaamil maman 17 ans la am maman xale la. dafa doon jàngale aussi. moom moo doon jàngale bu fi mataar nekkul ki nga xam ne mooy sama rakk muy mataar bu fi nekkul léeg mooy jàng xar xale yi yëpp bu leen jàngalee moom moo leen di sar waaw. léegi affaire bi drame ba mu amee sapeur yëg naa ñëw wala. non tey sapeur c'est pour dëkk bi ñëpp la man am na loo xam ne li nga xamante ne muy police di sapeur duma ma si critiquer mukk ndax tey jii mën nañ di ñëw si yoon bi am oto yu leen baare si yoon bi mais ñoom ñëw nañ def nañ seen liggéey ñoo bagage yu bëri ñun ñuy nekkoon ci biir kër gi fi nga xam ne mooy Papa ji ak yeneen gars yi ay laxaat ñooñu noon ay Aline Mbaye ba ñuy nekk ay Buray Pa Moussa ñun ba ñuy nekk di génnee bagage yi ñoom sapeur ñu ñu doon jàppale si lañ bokk kon amuñu lenn leen di wax ki nga xam ne Bamba Fall di ko gërëm di ko sant ah, ki nga xam ne mooy Paco Jackson ñooñu ñëpp ñu fii daal ñëpp ñu fi jàpp ñu ngi leen di sant di leen gërëm. voilà soo xoolee am na beneen nañ dafa doon sauvé kii dafa daa kooku daanaka mbokk la si ñun ndax moo sama frère ñooy ànd. man ma tonton ñoo bokk fi ñuy liggéeyee mais xarit dina dem ba doon sa mbokk xam ma moom yàgg na fi ñëw depuis xale moom moom fii ñëw yàgg na kon dafa ñëwoon di ñu dimbali xëy na yàlla fii la tuddoon bakkenam yàlla ji suñu borom def lu gën mu doon nit ku baax nit ku bëgg a boppam yiw nit ku baax bëgg a boppam yiw kon di nga ñaanal ki nga xam ne mooy Ousmane Sarr yàlla yóbbu ko si àjjana yu gën a kawe mu doon nit ku baax na ma nag parce que jaxasoo woon naa foogoon naa ne man pour man kër gi kenn dundul parce que kër gi euh, heure bi drame bi am fekk na kër gi day fees de lax nit kër gi kër gi loo xamante ne depuis xale ñëpp fi la ñuy fréquenté jàpp 16h ñëpp fi la toog naan ataaya waxtaan am weccante xalaat. Euh, lu ñu mën a wax bu baax la am yëg-yëg si nit a euh, respecté nit mën a joxe ñam surtout mën a joxe ñam. boo ñëwee boo ndékkeegoo sax nga nekka ko maman ndékkeegu ma sax mu dem defaral la ñëw tegal la ba pare am diine du faat waxtu julli barki barkaati démb maa ngi toog xam ci buntu kër gi ni ma toogee noonu di waxtaan ak moom ma ne ko maman seen dal bi de wóoru muy reetaan ne ma ak a ragal dee ma ne ko maman non loolu lii wóorul ñuy toog noonu di waxtaan noonu après tuuti si la déplacé u ñoo naa toog si buntu kër bi deux heures de temps dugg ma sax ci biir kër gi max moom ñoo toogandoo noonu après si laa jógee dem école Médine jógee école Médine dem ñibbi si ëllëg sa lay am. maman ñu bëri wàccee kaamil. effectivement effectivement dafa wàccee kaamil jàng alxuraan moom lu xam si alxuraan bi xaaj bi sax man xaw euh, euh, ma ko nekk ah yàlla mooy dogal yaakaar gu tas dañ am daal si gàttal parce que moom bébétam yépp loo gis boo ko gisee danaan man jàng dama bëgg a jàng ba wutal sama yaay fu mu nekk mëbale ko këram door a am jëkkër mbébétam lépp loolu la woon waaw. soo xoolee jàngale alxuraan. si daara ji boo xoolee vidéo yi gars yi dugal TikTok ak Facebook yëpp moom day toog euh, day toog si daara ji di jàngal xale yi day toog si daara des damay soxla dara woo ko ne ko maman demal ma fii mu ne ma maa ci daara ji bàyyi ma ma wàcc ma door fa dem parce que damay jàngale. voilà sax yaa ngi ko na euh, gi ni waaw man nag bi ma ko gisee xawoon naa ñaaw tuuti njootu mais lu comme. xalaatuma woon lii yëpp dina ci am daal xalaatuma ko woon mais comme fan yi ndox yi nu mu taw bi nu mu tegle woon miir bi moo mandi parce que benn côté moo daanu fekk sa yeneen côté yi waaw. léegi euh, xanaa di gën a ñaax rek borom kër yi surtout borom kër yi nga xam ne seen kër yi baaxul xam nga ñu jéem ñu jàppale parce que chaque année Médina am drame chaque année comprendre nga. waaw bu loolu weesoo maa ngi remercier sunu autorité Médina yi surtout sunu monsieur le maire Cheikh Ahmadou Bamba wax dëgg yàlla affaire yi commencé ba léegi taxaw nañu yóbbu nañu këram jox nañu lekk jox nañu ñaan jox nañu fu ñu tëdd jàppale nañu bu baax a baax ak Cheikh Ahmed Tidiane Ba Seydou Gueye autorité Médina yi moom macha allah. waaw ñu ngi kër monsieur le maire Gibraltar Cheikh kër Cheikh Ahmadou Bamba foofu lañ nekk euh, waaw. di gën a ñaaxaat rek surtout ñi nga xam ne dañuy am kër di ko loué nañ xoolaat kër yi nañ xoolaat kër yi dali dara baaxu ci surtout Médina sanc bi dafa yàgg. waaw dafa am partie boo xam ne location la am partie boo xam ne partie famille mais famille bi moo ci ëpp location bi waaw. Hmm? ñun ñu féetee kaw ñun luyee ñu beneen partie bi ñoo luyee mais ñu féetee kaw kër famille la waaw kër famille ok merci beaucoup.